alhamdulillahi alkarimi silmilan alastihadi bifurudin wa sunan sakartuhu liannu qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki taskir ñu del siwaat ci 2471 bi tawfiixi rabbi xam ngeen ni mu ngi wan tàmbali démb di fàttalente ak laayalante biire ak population Sénégal ci fan yi ñu door jëme ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi weer wële ñu tudde ko tànn ay ndawi yu ay député sénégalais yi yàgg koo def xam lu mu leen jariñ xam lu mu leen wàññi ñuy way gëm yàlla nu war xam ni kenn ku ci nekk li ngay def boo dekkee dinga ci am responsabilité sa diggante sa boroom kenn ku ne jàpp ni yow ñi war a defar réew mi ci nga bokk ñi war a mën a tànn di tànn ngir njariñu réew mi yow ci nga war a bokk ndax ab jullit nga ndax nit ñi moom ñetti xaaj lañu rek mooy al mu'min bi ci gëm yàlla kaafir bi mooy ki wedd yàlla naafeq bi mooy ki ne ci diggante bi wane ci kaw ni gëm na yàlla waaye ci suuf ku wedd yàlla la loolu moo tax mu gën a metti la mbugal ñëpp nag jullit bi nag moom kon moom mbiram leer na nañ ñi suñu bi kon jaar faneen fu koo xam ni yàlla da koo yàlla dafa rëbb ko fay jaar waaw kon ñii ñu tàmbalee gis jamono ju agsi foo xam ni kilifa ak kuy wut ku ku bëgg fal laa ku nekk donte li nga wax xam nga ni amul sax waaye mën na laa jariñ kii ni nga ko déggee ndax soo sosalee nit loo xam ni moom defu ko ngir nit ñi bàyyi ko jàpp la yow baax na pour yow boo politique noo koy dund nga miim loo xam ne yaa ko def tax nit ñi jàpp la ba tey baax na ba tey baax na nga nga eh, musa yore loo xam ne bu ñu la ko dénkee danga ca jàdd yoon yàqal ci population bi lu bari waaye boo ñëwee tamit di laaj ñi la bëgg dañ leen nëbbal loola rafetal ko lool moom daal dafa mel ni kon nit ki mënut a téye loxoom sook Sénégalais yi ñu génn tànn ay ndaw yu leen nekkal fale lu ñu découragé découragé lu ñu am am am courage courage bu mu tax ñu ëppal ñu découragé bu mu tax ñu dellu ginnaaw Sénégalais yëpp xam ni. li ñuy wax changement changement saa su ne jamonoy Abdou Diouf euh, Abdoulaye Wade moo nu tàmbaloon soppi soppi soppi ba deux mille bi mu soppee ñu dox tuuti ma dégg ndeysaan kooku sax gaañul ci PS la bokkoon jamonoy Abdou Diouf ba mu génn ci PS wut làngu boppam ngir sawar Abdoulaye Wade at yu néew lañ dox rek bi Abdoulaye Wade toogee mën naa soppi sàppi na soppi sàppi na waaw maanaam nit moom moo baaxoo ñu maturité bi dañuy bëgg lu bees waaye mënatuñoo muñ aha bu ñu doxee tuuti rek gis la neen daal ko fay jël loolu nag bu dee ci doxee doxinu réew moom réew ma dina yeex a am aw yoon mu jaar woo xam ni euh, ki jëkk ñëw day teg benn étage ki ca topp teg beneen étage ki ca topp ki topp comme réew yu mag yi def Sénégal nag déedéet Afrique réew yu bari bu ki ñëwee def fondation keneen bu ñëwaatee danaa fondation bi daara daara daara baaxu def beneen fondation moom ñëw ni fondation mu def daara daara daara jagu ci daal def beneen kon kañ la ñuy am eh, ab bâtiment bu am kañ yàlla rek xam waaye bu jotee nag yàlla da koy daal di yombal ndax aw yoon de daal ubbeeku xol yépp yi ëpp ci nit ñi gën a jublu nag ci lay yëkkati tabax boobu foofu la Sénégal toll mbokk yi waaw Sénégal foofu la tool waaw bul faste say loxo ni politiciens yi dañ ñuy fontoo bu la ñëpp a yem déedéet ñëpp yemul ñëpp yemul am responsabilité ci lu baax li fi ne nga participer pour yokk danga am responsabilité ci lu li fi nekk nga jàpp ci ngir mu dañ jàpp ci ngir mu dañ lii lii li rek nga xëy tey jii nii bu ñëpp wate woon ba ñii falu falu falu ñu jëlaat loi bii sa wàllu ngóor jigéen ñu dem mu jàll rek yow muy sànni woon saw carte ngir wat député yi di nga am tuyaaba ci Sénégal kat bis ni ki tey fi jamono toll Euh, nga xam ni ñu ngi wër réew yi am na réew yu nangoo par ndànk-ndànk ngir normal euh, normaliser lii di wàllu ngóor jigéen Sénégal moom da ko criminaliser sax faf mooy ku ko fi defate rek comme dañ lay considéré ko xëy da def crime xam ni léegi képp ku jiñ viol say mbokk ñi ngi yàlla bu mu tëdd lu ëpp fukki at waaye fukki at yi moom ñaare waaw du ñoo bëgg rek ngóor jigéen it ñu def ko noonu waaye ñii fi jógee nga xam ne lu ñu lu ñu doon wax député yi mooy loi bi ngeen di saako am na fi ba pare déedéet ba ñuy tabax loi yooya mbir yi fii mu àgg àggu fi woon la am na fi nañ ko génne wane ni mu ngi nii am na ah kon mbokk yi moom ëpp naa seetaan ëpp naa seetaan bul xeeb sa wenn carte bi bu ko xeeb waaye na nga xam fa nga koy duggal nag sa diggante sa borom. boo dëkkee ba xam waaw bul sànnil carte mukk mukk mukk koo xam ni bu lislaam jaaxle bu jullit yi bëggee loo xam ni lii mi ngi yàq suñu jikko yi ñu bëgg ko wote kooku attan naa lànk ah yow moo ko faral ndey ah gisuma la mbaaw dëgg yàlla kon bul fal fal ngir ngir bëgg gu ëpp bul bañ a fal ngir bañ waa ji rek waa ji daal man ngaa woteel ko ba mu des moom rek du noonu xool ba xam waa ji lan la mën a indil réew mi moom mooy kan li nga xam ci moom waaye kirixis neex daal ak lu yàq-yàq lu dëng-dëng lu jubadi jubadi jubadi lu nga ko tële tële moom ngay jox rek mel ni diine la la nga ko jëbal sa bopp ci lépp yooyu yëpp naa def naa def de su ko defee kon ah, li yuasiba allahu al munafiqina wal munafiqaati war naa tax kenn ku ne bañ a bokk ci naafeq yi yàlla nee na dina mbugal de ñen lay mbugal naa naafeq yu góor yi la jëkk a tudd nee na ak seeni jigéen wal mushrikina wal mushrikaati ak ñiy bokkaale sunu borom góor ñi ak jigéen ñi waaye xel na lal ndax wala boog wa yatuuba allahu ala almuminina wal muminaati wa kaana allahu xafuran rahima yàlla dana jéggal nag góor yi yu yàlla daa bokk ci ak rahim ab jéggalaa kon la waaye ab yërëmekat la gis nga kon eh, mbokk yi lislaam dafa aajowoo fi ñu toll nii société àgg ci ñor ndax mënatul xaar réew moo xëy ñi fa ëpp ay ndaw lañu ñi ci ndaw ña amuñu lu ñu xëy di dem loola mënatul xaar xaar bu yàgg léegi nag bu amee kon ndaw ñoo ñaag mag ñaag ña nga xëy ñooy homme ñoom ñëpp ñooy jóg am benn jubluwaay su ko defee yàlla def ci biir suuf si ak ci ndox mi eh, ak ci biir réew ma ñu daal koy génne daal koy exploité jariñoo ko ndax yàlla def na fa ay boroomi xam-xam yu ko mën a exploité ci xam-xam def fa ay ndaw yu toll ci liggéey yor seen doole loolu yàlla ak séddale moom def na ko léegi nag loolu noo maanduwul ci ni ñu séddalee léegi nag mos nit ku am benn compte ñu fekk ci junni milliard junni milliard kenn nit mbokk yi junni milliard allahu akbar benn milliard bi moom mënoo koo jeexal seet tit tit tit waaw kon euh, kóoluteef la lii nga xam moom la ñuy laaj muy pal gi kóoluteef nag ma nga tàmbalee ci sunu borom ba mu ko gaaralee mu def yëpp attanuñu ko gàntu mu yenn nu ko nun nit wàcc na kaw suuf defal nu fi lépp nag loolu war a yitte woo rek jox nu xel nu intelligent lool tàggatal lu lépp géej gi ak jaww ji ba ñuy naaw ci jaww ji di dugg dugg ci biir géej gi di dem ba ca weer wa rek bu jigéen waneew lor nga tàmbalee xam waaw fu mu toll li góor la wala jigéen la waaw kañ lay war a wasin ak yu mel noonu avancé ci lool waaye ndax su liggéey suñu boroom moom fu ci toll ci jikko ju rafet jooju nga xam moom la tagg woon sang bi fan lañ ci toll man danoo bokk ci ñi nga xam ne saloo man di óolan la la yàlla di wax ci alxuraan ni wa xamalaha al insaanu innahu kaana saluuman jahuulan amaana bi de bi ñu ko gaaralee ala samawati wal ardi wal jibaala maanaam inna aradna al amaanata ala samawati wal ardi wal jibaali fa abayna an yaxmilna a wa ashfaqna min a wa xamalaha al insaanu innahu kaana saluuman jahuulan su ko defee ay moo wax léegi su ko ñëw ci li li euh, yuazib allahu al munafiqina kon kon amaana boobu du dara lu dul lal euh, amru bil ma'ruf ci waaye imtisal awamirillahi ci la digle baax di ko def tere lu waaye jëfali ndigin jëfe ndigali kon nit moom taklif responsabilité bi ko suñu boroom defal da ko jox wërsëg wu ko mate jox ko am xel wu muy amee possibilité ngir topp yàlla wala ngir mooy yàlla ngir moytu lu koy lor ngir dugg ci lu koy lor ñaar yëpp dafa jàkkaarloo yàlla bàyyi ko moom jox ko xelam waaw leeral ko nag yónnee ko ay ndaw ndaw yooyu yor seeni téere tudd ay yonente alayhim assalaam ay ay ay ndawam ñu wax leen lii mooy gëm yàlla ñu laaj ci d'accord gëm yi da nga faatu di nga dekki dañ la mbugal astaghfirullah dañ la xisaab réglé la boo baaxlee dem àjjana sawara am na waaye mu mel ni ñu lam ba mënatoo xàmmee ñi ni gëm nañu yàlla moomu ak ñi ni wedd nañ yàlla mënatu leen xàmmee ndax jamono léegi yi nee nañ moo ko laaj ah, ah dañoo bëgg nun ay ndaw yu mat ndaw ci bu ñu leen falee ci ñuy mën a wommat population bi ba fi ñu nekk yu jóge fi xool fa neen foo xam ni moo gën a méngoo ak dundu doomu aadama ci réew moo xam ni ñoom ñëpp ay way gëm yàlla lañ kooku nag du nit koo xam ni yàgg naa bëgg looxe amagu ko te jàpp ne bu faloo danoo ko am kooku moom du la ko mos a defal ci àdduna ndax bala maa faj kenn suma yaram feex bala maa laax di jaay damay laax lekk ba noppi kooku daanaka ci loolu lay dox bari na koo gis muy xëccu nekk pour nekk député salaire bi wallahi la si moom mooy première yitteem wallahi salaire ba mu cay amee mooy première yitteem ndax mooy tax mu mën a wéyal ak dundam te du am problème parce que jàpp na ni bu ko lii rawee moom léegi fan lay jëreeti lu muy dunde waaye jàpp nañu kat lii bu ko xasee am kon dana ko jaral fen dana ko jaral wax lu amul dana ko jaral eh, indi histoire jaaree ko ci fay ay nit ndeem am na ko lépp la koy jaral lum jàpp ni bu ko waxee lu bon bon lu araam araam lu ñaaw ñaaw àttan na ko wax foofu la ñu toll tey nun nun ñenn ci senegal yi mbokk ndax kon mbokk mi li muy laaj nit ñi am sañ-sañ léeg-léeg eh, nii léegi du ma wote waaw nit mën na ko am te eh, kenn du ko ca blâme ndax moom am na fu mu ko teg fi mu toll nii rek yaa ngi dégg ci wax yi ñoo xam ne da leen di xeeb lool bu ñu waxee ba noppi waaw bu ñu waxee ba noppi te li olof naa ko war feeñ ah, ñi xaw a am ab diir ci Sénégal nag xam dara ci nit xam politiciens yi ni ñuy ni ñuy wutee buñ bëggee falu yépp fi ñu toll nii. masque yaa ngi daanu waaw masque yaa ngi daanu waaye population bi moom yàgg nañ ko def nañu ni teg bu jëf jot ñoom ñu jëf te kuy jëfit na xool ci diggante ak sa boroom li nga jàpp ne moo gën ci réew mi gën ci réew mi waaye bul ni li gën ci Macky Sall li gën ci euh, Bassirou Diomaye li gën ci nàngam waaye am na lu gën ci réew mi nag la gën ci réew ma nag bu benn leader waxee lu dëppoog loola te fekk la wax moo gën ci réew mi yow nanga woteel li leader booba beneen leader ba wax loo xam ni donte mooy sa leader waaye li mu wax gënul ci réew mi ah bu ko woteel de lii député de mbokk yi député de waaw ñoo ni woteel loi yi tax Sénégal du dugg ci yenn guute yi ñoo ñoo ni koy woteel jullit nag day am fulaan ah. waaye parparloo gi ak man euh, Pastef la cent pour cent man PS la cent pour cent man APR la cent pour cent bàyyi leen sa bopp loolu ab jullit du ko def jullit du def loolu mukk mukk waaw bokk kon wor ci boppam am na waaye woru tamit day am léeg-léeg ginnaaw nag ñun doo bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo tooñ suñu bopp ndax réere woon al amaana bi ñu jël te respecté ko yow gaawal génn sa bopp yow bañ a nekk xaayinul amaana tuubal sa boroom subhaanahu wa taala fexe ba bokk ñi nga xam ni li ñuy wax al adala muy justice muy maandu ci kaw suuf yow yaa ngi koy dund sa digganteeg sa bopp sa digganteeg sa boroom sa digganteeg sa moroomu nit rek bul far képp koo xam ne population bi tooñ ci ay kàddu wala tooñ leen ci alal nag suuf a nga ca xaalisa nga ca nanga ma ca nangam ak ca wala mu am doole boo wote loi yoo xam ni jël décret yoo xam ni dafa yàq lu bari bul ko défendre défendre de loi wax dañ la laaj lii foo ko teg bu yomal xiyaamee kon ñun ñëpp nanu jóg jóg xam ni borom bi subhanahu wa taala la yuxayiru bi xaw xawmin ata yu xayru ma bi anfusihim kon taxyiir bu ko ab population rek mën nañu ko daal am te li weesoogul wane na loolu wane na loolu waaw kon waxtu bi jot nu yem foofu bu ñëwaat incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sifadi bi furudin wa sunan sakartuhu qad saxani liwatani bihi nafa ma wa